Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. asalaamaaleykum mbokk téléspectateur ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu ngi rafetlu ànd bi ak Equivox TV te nag dañoo wàcc fii ci Sacré-Cœur ngir jàkkonteel ak askan wi waxtaanee li nga xam ne moo ñeewal wàllum yamba bi muy sinébar bi nga xam ne. ci fan yee weesu ki nga xam ne moo di Seydi gasama jiite Amnesty International ne dañ ko war a fii ci Sénégal ñuy laajte rek askan wi lan moo ciy seen xalaat bu ko defee rek ngeen daal di topp ma. Sénégal réewu jullit la ñu te réew mi dañoo bëgg lu ko kanam te defe naa ne lépp luy dofloo ab dof mënta defar am réew te da yàmbaa kenn ku ne dégg na day dofloo je pense que nii c'est pas normal parce que ñuy eh, kii <laughs> autoriser comme ça ñuy utiliser yamba bi c'est pas normal parce que mën nañ ko euh, autoriser élèves yi di ko euh, milieu scolaire bi dañ fay gis élèves yoo xamante ni dañuy tux te loolu noonu da leen di gën a da di gën a influencer daal. non ànduma si instant yamba mu ngi am ci dëkk bi délinquance bëri fii mu yàq xale yi bu nga daganalee léegi day gën a yokk affaire boobu day gën a yokk. ko dama yaakaar daf bokk si mafia bi quoi. ndax jow boo ko déggee wax ju garaaw la loo xamante li muy yàq si doomu aadama moo ëpp fuuf li mu koy defar quoi. non yaakaaruma ko mënut a nekk. Hmm. non non non parce que ginnaaw aussi li ma la wax rek comme ay jullit lañu dañuy wóor ne ay jullit lañu te lëg bu yàlla bu ëllëgee yàlla dina la laaj sa xaalis bi foo ko jëlee foo ko dugal kon defe aussi pour xaalis bu dagan defe ne moom lay soxla nga tontu ko ko. non loolu du indi avancement parce que. chaque jour nga gis fi ay ay ay ñoo xamante ne dañ leen di rey ay viol affaire yooyu noonu yëpp nga nga xam ne ñooñu noonu ñiy def loolu noonu ànduñu seen ak seen conscience tranquille dañoo xam da nga xam ne au fond ñi am na lu ñuy utiliser bu ñu utiliser wul ay yàmba ñu ngi def ay drogue. niveau de délinquance en plus élèves yi làqat di ko def léegi dootuñu làqat dañ koy def si biir si biir école la ñuy tox kenn mënu si dara loolu moo yàgg am fii nii gars yi dañ koy def di làqat mais soo ko daganalee léegi ñëpp dañ koy def. xam nga loolu daal daal xam nga man lu ma gis daal xam nga loolu naay sur quoi parce que Sénégal dafa aw war a am sécurité interview pour xam nga nit xam nan lay war a jëm quoi parce que xam nga loolu tamit bu amee si Sénégal tamit xam nga du neex si Sénégalais quoi parce que lu neex lu la neex nga def ko xam nga te ñëpp dañuy xam nga lu ñu nekk dañu koy war a def quoi te loolu du baax suñu réew mi quoi xam nga daa ma gën a xam quoi parce que loolu naan naay sur quoi si Sénégal bi quoi du Dakar fii maa ngi doon dégg ba benn journaliste bu mag tey di wax si wax boobu nag ne yàmba euh, lu naturel la quoi suuf lay jógee mais fii moom léppay naturel presque nit ñi ñoo ko jël transformé ko mais loo xamante ne li muy yàq si doomu aadama moo fuuf li muy defar jàpp naa wax jooju moom du wax nekkuñu sa di ko may wër bu mu waxee loolu da nga ko woon a jàpp benn wax boobu comme ça am nga bii paase am na benn député boo xam ne euh, immeuble yi ñu defaree drogue si dëkk bi bu ñu ko génne woon immeuble doo des si dëkk bi kon bi mu waxee wax jo woon na nga ko téye tey ko wax ko est moom bokk si mafia bi quoi dama xam ne li li yàq li loo xamante day yàq doomu aadama jàpp naa nit wër si wax wax jooju noonu naan da ko war a légaliser affaire yooyu noonu en tan que jeune tamit lool bu ko yi jàppee wax joo comme ça am am na gars yoo xam ne si profité occasion boobu noonu commencé na waa waa wax na dëgg da nga ko da nga ko yooyu noonu loolu moom du affaire du wax waxi nit quoi. waaw mais yàlla moo bindee noonu àdduna di bind dara ba ba pare dara dafa dafay am ci àddina ba pare te yàlla walbate ko araamal ko. non mun nañu jël benn solution mais affaire yamba moom que dañ ko war a tekk si suuf quoi xam nga ñu uti benn business bu xam nga lu war a indi Sénégal quoi xam nga mais affaire yamba daal xam nga ku war a defoo secret nga defal secret mais nekkul pour ngay génne si mbedd bi tudd xam nga du nekk lu nekk nga def ko xam nga day war a nëbbut quoi day war a am xam nga la privé euh, le privé quoi. xam nga même boo ko defee sa war nga ko defee sa kër xam nga tout war tre très bien xam nga nga génne sa soxla xam nga nga fay say soxla xam nga mais pour dans la publique tamit xam nga lu nice quoi parce que ku nekk bu la gisee noonu tamit da lay topp quoi day naan a ah, kontaan man tamit damay topp comme kii tamit lu muy def tool xam nga ñu ñëpp après Sénégal lan lay war a am su ñun ñu ñëpp dañuy yàqu quoi xam nga loolu tamit du du du du lekkaas ñun quoi c'est pas interview c'est pas bon aussi quoi dañu war a am suñu réew lañu ko war a respecté naajusement pour mu jëm kanam quoi xam nga. ah oui total analyse total lay indi loolu moom kenn mënu si d' accord kenn mënu si d' mun mën nañu indi yeneen mesures yoo xam ne pour contrer affaire bi pour jéeme alléger pen yi wala looy noonu mais dagal yàmba moom c' est l' extrême moom moom mënuñu fa yegg quoi. mais xam nga dóor la benn deux mois wala xaalis bëri ñu amaan xaalis bëri loolu yooyu noonu mesures yu bëri mun nañ ko fi def mais ay ay daganal yàmba moom moom. je suis d' accord non xaalis boobu baaxul loo xam ne day lor nit ki nga ci am xaalis loolu baaxul loolu ça ne vaut rien après santé moo ëppale loolu moo ëpp lépp yow boo ñëwee yi nga am ci xaalis après léegi nga jël ko di fayewaat askan bi lu am benn njëriñ. li muy yàq si nit moom muy lépp sax nekku sa yambaam mais cigarette sa toll na cigarette sa li muy yàq si nit mooy loolu li muy yàq si nit benn affaire la loo xamante ni daal naturel moom. waruñu si wax ay waxi say légal surtout maa boobu noonu quoi. mais gis nañ ko si sous si sous région bi tamit dëkk yi koy li liñ siy jëlee si xaalis presque dañ koy double defaat ko si centre bi boo xoolee si dëkk yu bëri yi koy légaliser si sous région bi tamit li ñuy génne xaalis si xaalis boobu noonu presque dañuy defaat triple wala euh, wala wala wala double pour pour defaat ko si santé na li muy yaax moo ëpp li muy li muy li muy joxe quoi. voilà chers téléspectateurs ñoo ko gisandoo dagana li nga xam ne moo di yamba mooy daganal rek euh, anarchie yokk insécurité loolu la askan wi wax ñoo ngi leen di jox dig daje beneen yoon ci yeneen itam. Si vous aimez cette vidéo n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.